ci yéen kaay yi. Elhadji Ousseynou Ndiaye. Elhadji Ousseynou Ndiaye ci xibaar yéenekaay ay nga xam ne rek noonu jamono ji seen nga xam ne rek ñoo jot a ñàkk seen bakkan réewum Sénégal ñetti téeméer ak ñeen fukk ak juróom-ñeent yéenekaay ji kay Abdoulaye daal ne ma jëruñ ji nga xam ne rek moom la ñu dénk lépp loo xam ne daal nee na na ko moytu maanaam daal lu nekk mën naa xew jàngoro covid 19 gi ak ji ni nga rek noonu lay doxee wala yéene kaay yi duñu xamal daal na muy doxee fi rek moom moo di Tambacounda doy na lool ndax benn ayu bis lu toll ci fanweer ak ñeent ay cas yoo xam ne jot nañ ko am bax rek jamono ji lool def ci jàngoro covid 19 gi réseau la yéene kaay loolee jàngoro tey mooy tasaaroo ci réewum Sénégal ba tax na nag jamono ji yi nga xam ne rek ba tax na rek laas yéene kaay dañoo xamal ne maanaam daal gouverneur bu Dakar ay matuwaay nem gouverneur bu Dakar di Alassane Sall ay matuwaay yoo xam ne maanaam daal feet yi nga xam ne rek dañu ko waroon amal mooy pag yaag ñooy la ay na ko ba loolee am fekk jamono jooje xam ne boo moytul dina am réewum Sénégal muy maire yi nga xam ne boo moytul dinañ leen supprimer maanaam daal effacer leen la ñu dénk lépp loo xam ne jëm ñoo ànd ak Khalifa Babacar Sall waa taxaw Dakar ñoom daal yëfi caaxaan la jàppee loolee nga xam ne bëgg nañu koo doxe

daal li nga xam ne digé woon na ko réewum Sénégal ko ji yéene kaay gi ne ko ñëwal tragédie bien mal ak alal ju lew ji nga xam ne rek doon na ko topp ana fu mujjee mbirum Karim Wade ak Khalifa Babacar Sall fu mujjee yéene kaay gi ne zéro ba ci mbirum parrainage bi géete aj ak dialogue politique ba yéene kaay bi di l'évidence di ñu xamal ne dialogue politique boobee kay ay piège yu rëy moo ci am Pape Diop yëkkati na ci kàddu ci l'évidence yéene kaay laas yéene kaay di ñu xamal ne réew mi kay moo nar a baax ndax gémonu ji ñi nga xam ne rek ñoom ñoo di boulanger yi nekkee ci réewum Sénégal ñoo war a amal am ñaxtu Walfadjri yéene kaay ne leen nag leen métti mooy jafe-jafe yi nga xam ne rek moom la ñu jànkoon ci seenu ko liggéey yi ñu jaare fa ba daaneele ko rek ci diwaan bi yéene xamal ne Serigne Mbacke Faye jamono ji nag moom coordonnateur bu keer coowam na dox di dalo ba jamono ji loxo alhamdulilah ginnaaw ay jam yéen a bokk sen Mbacke bu leen saytaane jaxase